réew mi 24 TV. ma ne ñoo ko gisandoo le convoi de euh, Diomaye président voilà ñi nga xam ne ñoo jógee jàng ànd seeg Mbaye Diabane voilà ñu ngi nii ñoo ko gisandoo war jëm fi nga xam ne mooy Ndulmaaji Dembe jëm seetu Sebbe fa lañ war a ndogu ji jógee nag ñu dégg ne président Diomaye ñëw na Ourossogui ñu takk convoi bi. voilà dem fi nga ne mooy Ourossogui waaw ñoo ko gisandoo lii lépp ci njàppandalu Maam Faty Ndiabane la waaw Maam Faty Ndiabane bu seet bu bu bu jeng voilà oto yi ngeen gis yëpp moom la voilà voilà lépp moom la ci dimbalam wallaahi wallaahi dëgg la Sonko rek Sonko rek wallaahi wallaahi dëgg la te muy lu wér wallaahi dëgg ñoo ko gisandoo di bokk yi ñu ngi fii actuellement Taïba ngeen voilà ñoo ngi fii ci Taïba caravane baa ngi ni gis ngeen oto yi oto yi ngeen gis yëpp maam la bu jeng ñoo ko gisandoo ñoo ci tegandoo suñ bët voilà gis ngeen gardu yamre inchallah jittu insya Allah.